الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا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 nañ sangu ba set jàpp toog na le di xool ñi julli di wax allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa azila xam ñoom duñ julli pour rek li ma wax malaaka yooyu ànd ak suñu borom sëpp yonent bi bëgg ñu sëppwaale leen sallallahu alayhi wa sallam su ko defee yàlla nag su sëppoo jaam yi comme nii mënu sëppoo tey day wax jaam yi ñii de maa leen santoon yi ma wax yépp koor gi ñu woor naafila gi ñu naafila guddi laylatul qadar ñu dabu ko azakay muuru koor ñu génnee ko li'tikaaf ñu def ko même li'tikaaf saxaaba yi dañ ko daan def li'tikaaf bareetul ku koy def léegi mais mën nañ ko sax def ngeen baal ma man ren dafa génn sama xel ci bayaan yi may def moo waxuma ko dama ko daan indiwaale ci bayaan yi maanaam li'tikaaf mën nga kaa def sax deux heures de temps deux heures de temps yonent bi daan def bu koor gi desee juróom-ñaari fan mu dem ci jàkka ji dootul génn ba ñu kori wala bu desee ñetti fan mu dem ci jàkka ja toog loolu mooy lixtikaaf toog fa rek di jaamu yàlla ba ñetti ba ñu weer yu feeñee nga génn mën nga ko def tamit maanaam comme par exemple benn vendredi rek wala benn samedi yaa xam dimanche nga jóge sa kër dem jàkka ji di julli ji tisbaar boo ñëwee ba ci jàkka ji nga yéene ni man damay def lixtikaaf trois heures de temps maanaam su ma jullee tisbaar ba pare après man du ma génn jàkka ji damay toog tisbaar ci jàkka ji yore sama kurus ak sama téere alxuraan di jàng di jàng di jàng di jàng di jàng ba 5 loolu mooy yéene ko def ko sama li'tikaaf da ngay am tiyaaba ji yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla bu tiimee jaam yi ak malaaka yi day wax nii sa malaaka yi xool leen sama jaam yi yépp maa leen ko santoon ñu def ko léegi nag dama leen di laaj yàlla wax malaaka yi dama leen di laaj ku liggéeyloon nit ni ko boo ma liggéeyee lii lii ba mu pare ma fay la lii kooku la nga ko doon liggéeyloo mu liggéey ko na ko ko doon waxee ba mu rafet defal la ko na nga ko bëggee wala na kàttanam yam mu defal la ko léegi yow nu moo war si yow donte yàlla dara waru ko malaaka yi ne xanaa jox ko li ngeen waxante woon maanaam jox ko fayam li ñu waxante woon yàlla ni malaaka yi seede leen ndax yéen a nekk ak man sama jaam yi doon woor te nekk ci néeg bi di julli ak ñi doon woor te am ngànt mënuñoo julli ñëw ñépp seede leen ni jéggal naa leen seen bàkkaar yépp desewul benn bàkkaar moo tax ñun balaa ñuy génn fii malaaka yi bu ñu jullee ba imaam sëlmal ba imaam xutba ba pare malaaka yi dañuy wax naan xuumu maxfuuriina xuumu maxfuuriina jóg leen ngeen dellu seen kër yi jéggal nañ leen seen bàkkaar yi moo tax bisu tey tamit bis la bu rëy ci juróom-ñetti bis yi gën a màgg ci bis yi bisu tey bii ci la bokk muy bisu korite waaye tamit bis la boo xam ni ngeen baal ma seytaane da ci ngemb tey day ngemb bu dëgër daan ne ah gars yi li ñu liggéeyoon ci weer wi ak li ñu jaamu woon yàlla man tamit naa def effort pour yàq ko parce que yow tamit li ngay góorgóorloo di dem ci yàlla moom tamit noonu lay bañee yow nga àgg ci yàlla su ko defee bisu tey seytaane li muy wax ni danaa leen neexalal yii danaa leen danaa leen danaa xiir seen bakkan ci ay lekk ak i naan ak i tëgg ak i fecc soo seetaanee télévision yi wala yooyu dangay gis euh, bisu kori diw fii lay tëgg lendemain kori diw fii lay tëgg te ay jullit rek ñooy dem foofu di ko feesal te mën na am ñi ko doon feesal ñoo ñu ngi doon woor ñu ngi doon woor ñu ngi woor boo boo xoolee télé bi wax nañu daanaka semaine bi yëpp boo xoolee kenn ku ne fii la kii fii lay tëgg ay jullit ñoo fay dem jël seen xaalis joxe julli ñoo fa doon dem mën na am sax ay ñoo xam ni koor gi ñu ngi doon joxe ay ndogu ñu ngi doon dimbale nit ñi ñu ngi leen di jàppale ñu ngi ñu doon def lu baax ci jàkk yi ak ci jumaa yi waaye ñoom daañu am sàgganteeg seytaane manipulé waat leen ba ñoom ñu dem si jataay bu ñu warul dem loolu tamit jullit yi nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax ba loolu ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des fi may daaneele bayaan bi ndax 10 heures lañ waxoon li ñuy julli te lee jot incha allahu rabbi moins 5 ci sama montre fi may daaneele bayan bi moy koor gi jeexna tak waye koor du fi jóg tay lañu wori suba sax kumu neexon nga tambali wat ndax yonent bi mo waxon ni man saama ramadaana wa atbaahu bi sittin min shawalin fa ka andama saama dahru kulluhu yonent bi neena ku wor weru koor ba mu jeex nga teg ci juróom-benni fan ci weeru shawaal yonent bi ne dafa mel ni yow sa dund li nga dund boo doon mille ans la dafa mel ni dund gi yépp dañ lay bindal tiyaabay ku ko woor juróom-benni fan ci weeru shawaal ku ko man bu subaa nga tàmbali juróom-benni fan yi ci weeru shawaal nag soo mu amee wér yaram moom mën a tegle tegle ko soo amul wér-gu-yaram yi tamit fexeel ba weer yu balaa mooy dégg nga def ci six jours rek dégg nga mu yomb diine yomb la da gis ñoo xam ni dañuy insister nii si jury day tegloo déedéet soo ko mënee tegle tegle ko parce que am na ñoo xam ne tey avant koor gi di jaax sax daanaka mën nga ni jeexal nañu seen wér-gu-yaram mayatu leen seen naa am na ñoo xam bi ñu nee démb weer wi feeñ na dañuy sant yàlla maa ngi sant yàlla parce que yaakaaroon naa ni balaa muy jeex danaa ci dog nangam nangam ñu ngi doon góor góorgóorlu xam nga kooku mënul enchaîner si jours yi waaye boo ko mënul tamit noo ko mënee rek nga def ko yonent bi moo wax ni كيب كو خامي وور نا ويرو كور بامو جيخ nga تيك سي جيروم بن فان دا فا ملني سي ديرو دونو nga وور بن بي سي ديس ني رون نافله سي كور جي نافله كور مو جيخ واي نافله موم دو جيخ نافله دو جيخ داماي واخ توجور ني اب جوليت وارو جولي جي رك صفا 8 تد نو نو نو نو لولو جولي وارو كو ديف دونتي نينتي راكالا نافله كو باسكو يالا دا فا ديغلي نافله سي القران ومن الليل فتهجد به نافلة لك عذا أن يبعثك ربك مقاما محمودا كيس النافلة دفو منو يبني فوق من جن بالما فرتا منو في يب فرتا مو أبو دول النافلة لطخ فرتا سي أوبليغاتوار سوك دفو البرم بدفو لي دوما سوك دفو دفو لي سانشوني مي النافلة نك سوك دفو أمتيابا سوك دفو كندو لا سانشوني لينا خمني نك سوك دفو كندو لا سانشوني مجرن لنغتي سونو diko def dara taxul xana yàlla yow la bëgg yàlla yow la gëm yàlla yow la sop motax ñëpp tëdd ma jóg di naafila kooku yàlla duko ninal amna ben jigen bu tuddu rabiatul adawi ñëpp xam ngeen ko rabiatul adawi yi même ñu jàngul dégg nañ ko wax nañ daana naafila junni raka junni raka wax nañ ko am ñu ni par guddi am ñu dedet journée bi yëpp limi muy naafila mën na junni raka mu daan wax ni junni rakka yi maa ko naafila جاموك يا الله دفكو هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم pour ëllëg yowmal xiyaam man leen rek laa ci bëgg mbégte yonent bi bégal yonent bi bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ñu dekkee rek sallallahu alayhi wa sallam téye sama loxo yëkkati daal ni kii jigéen la ci sama xeet la bokkoon daana naa fi la junni raka jaamoo ko yàlla laaj yeneen yonent yi ku ko am ci sa xeet ñëpp ni tekk mu ni loolu rek doy na ma su boobaa man lu ma yàlla def baax na ndegam bégal naa yonent bi ma ne ko xam nga ni ku bégal yonent bi yàlla dalay bégal yow mu ni moom bu su boobaa affaire bi du pour àjjana nee na du pour safar loolu nag maqaama la nitu yàlla yi ñooy àgg foofu nga xam da ngay dégg koo xam ne day wax ni jaamu ngi du pour àjjana bu dee pam si la moom yi muy def yépp ragal safara la jaamu yi may def yépp ëllëg rek ma bëgg a dugg àjjana foofu laa toll man moom nag fa mu toll mooy jaamu gi muy def yépp moom nee ragalul safara bëggul àjjana loolu rek la ci bëgg كون نافلة يندون دف تي ويرو كور مو جيخ مي نافلة بي جيخ كون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من المؤمنين لولو ني تشبولي وطائفة من المؤمنين يالا نانا يوننتي بي خمنا ني يو غودغي دنكو سيدي نياري باتش بين ييب دنكوي نافلة ولا صاح نياتي باتش بي اوب nga نافلة خمنا لولو ngay def nak am na benn kuréel ci jullit ñi ñoo xam ne tamit ña ngi la cay roy di la ci toppandoo te ñooñu yàlla daf leen di fay kon loolu tax ma ne naafila donte ñeenti rakkaa la baax na saxal ko rek maanaam soo jullee gee ba pare nga naafila sa ñeenti rakkaa def sa safa def sa wiitar loolu xoola même boo ko dee def bu koor gi ñëwee bu la neexee continuer lancé boobu demal si loolu rek ndax yonent bi moo waxoon ni ahabul amali ilallaahi adwamuha wa in qalla yonent bi ne jëf yi bi ci gënal yàlla mooy bi sax xam nga tey boo defee vingt suba quarante doo ko man da ngay da ngay tàmm sa yaram loo xam ne moom chaque jour man nga ko boo jullee gee par même boo sonnee yenn saa yi wala nga tawat mënoo ko nga toog ci sees bi sax naa fi ko nga xam dootoo ko bàyyi loo sonn sonn da ngay toog nii da ngay julli gee ba pare sax boo xoolee mag ñi da gis ko xam day julli ba pare mais naafila bi muy naafila day toog naafila ko te dara jotu ko kon naafila du fi jóge kon itam jàng alquran bi ñu doon def alxuraan du fi jóge julli toujours dafa war a jàng alxuraan comme koor gi dangay gis koo gis mi ngi téye téeréem di jàng loolu tamit da ngay fexe ba bu koor gi jàlle nga jéem ci sax ni nga doon téye kurus gi nga nga fexe sax ci parce que bari na jaamu yàlla bu nit di def fekk ci koor la ko jóge parce que koor maanaam tadrib la maanaam day former nit ci dara ci benn façon jaamu yàlla ngeen baal ma da gis koo xam ni dafa daan jëfandikoo lu mel ni tux ngeen baal ma ci wax bi koor gi jot du ko def koor gi jàll ba koor gi jàll rek mu jaare fa bàyyi ko koo xam ne koor gi bis bu ne dana jàng naa ngi bi xisbi koor gi ñëw mu continuer du ko def kon loolu itam jàng alxuraan du fi jóg saa su nekk li ñu doon def xeetu baax baax yi yenn saa yi nga defar ndogu woo nit ñi yooyu tamit du fi jóg ba léegi mën nga koy def jël la nga naroon defaree ndogu nga seet benn miskin ci bi nga jox ko ko kon li may tëje mooy al istimraaru fi taatillaahi baada chahri ramadana wéy wéy wéy wéy continuer di jaamu yàlla te sax ci gannaaw weeru koor yàlla nu yàlla nangul yàlla nu yàlla yàlla ñu ngi lay sant bu baax yow mi nu may ñu fekke yàlla ñu ngi lay gërëm yow mi ñu may ñu fekke yàlla ñu ngi lay ñaan li nu woor yàlla nga ñu ko nangul njuumte yi ci nekk yàlla na nga ñu ko jéggal ñu ngi lay ñaan koor gi yàlla bu mu nekk suñu mujj koor yàlla nañ ko woor ay at yu baree baree bare yàlla sàmmal ñu suñu kilifa diine sàmmal ñu suñu kilifa aada def ci suñu réew jàmm ak réew jullit ñëpp Thierno mii nga xam ni gannaaw dogalu yàlla lii yàlla nga ko jaarale ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér may ko gudd fan mu yàgg fi lool ci barke yonent bi ñun tamit ñu yàgg fi lool ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu maa ngi yëgal jullit ñëpp ni àjjuma bii di ñëw inchaa allahu rabbi suñ defee xadaratul juma ba noppi kaamil bi ñu doon tafsir fii ci jàkka ji parweeru weeru koor àjjuma bu ñu jullee timis ba pare lañ koy tëj fii ci zawiya bi gannaaw timis diggante timis ak gee dañuy julli timis tëj ko sëriñ bi sànnanteeg ñun kàddu yi muy sànnanteeg ñun ñaanal ñu ñu jóg julli gee yëkkati jataay bi maa ngi ñaan kuy jullit te mën ko fekke nga ñëw teewe ko mooy aj vendredi le 6 incha allah ku am ngant itam ñu teewaaleel la nga nekkal ñu fa nga nekk yiw wi ñu fa am yàlla ñu ko yàlla boole ñu ñépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi jéggalu nag mbooloo mi yépp maa ngi leen di jéggalu dama leen di jéggaloo àjjuma bu jot ma ñëw taxaw seen kanam di wax te yéen ñi may waxal yéen a ma gën a ragal yàlla yéen ñi may waxal yéen ma gën a jege yàlla yéen ñi may waxal yéen ma ëpp xam yéen yi may waxal yéen a ma gën a sell loolu yëpp yéen ma ko gën a def ma taxaw ci seen mbaax di wax ngeen may déglu ci seen mbaax loolu itam maa ngi leen koy jéggalu di ko jéggalu yàlla di naan yàlla yàlla ñu yàlla boole jéggal lu ma fi mës a wax fekk xaw na frustré kenn wala jubluwuma ci loolu dama ci jublu rek lu defar lu baax lu ma wax tamit fekk xaw na laal pas-pasu kenn maa ngi koy jéggalu bëgguma wax lu naqari kenn bëgguma wax bëgguma def lu naqari kenn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 فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل وستعني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة ولو رسولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولي وسيجنب حالة الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي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 والضحى والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل صوم رمضان فريضة على أمة خير الأنام وجعل عيد الفطر يوم الفرح والسرور في الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله القائل للسائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واتباع سنة نبيه المصطفى الكريم قال تعالى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 صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتدى امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إنك حميد مجيد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 ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله ففي سنتين الماديتين قد امتحن الله عباده بمرض كوفيد 19 لا شك أنه جند من جنود الله قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أرسله إلى الناس لكثرة, لكثرة الفساد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوها واستغفروه من الذنوب والآثام إنه هو الغفور الرحيم أما رمضان فقد ارتحل وبارتحاله عبارة على تنقص الأعمار واقتراب كل واحد منا إلى أجله المحتوم أيها الإخوة فلا ننسي الدروس التي تعلمنا في رمضان منها الصلاة مع الجماعة وتلاوة القرآن والإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وضبط النفس ونشر السلام قال عليه الصلاة والسلام المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إخوة الإيمان أن الخير كله في السلام والشر كله في الفتنه والخصام وقال بعضهم للفتنة أربعة حروف الفاء التاء النون والتاء المربوطة وقال فاؤها فساد ونونها ندامة وتاؤها تلف الأموال وهاؤها حضر الدماء ويطلب منا أيها الإخوة التسامح لبعضنا لبعض وننسي وننسي الخصامات والفتنة لأن الفتنة نائمة فلعنة الله على من أيقظها نعوذ بالله من ذلك وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وهي صاع أو ما يقوم مقامه من أغلبية طعام أهل البلد فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من الشوال كان كصوم الدهر اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا رمضان في مرات وكرات مع الصحة والسلام والعافية اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد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 eɗen calmina julɓe eɗen juuroɓe eɗen ñaagoɓe yaafuy en jaafim banggueji meɗen dendagal ko ndewɗen allah ko yo allah jaɓanen hen dendagal ko gofɗen lebbol ñimo so moyi tawi ko tinden e kon tinani min yekkam min yebol allah wottonen ɗum wottan ɗum baraji yallah ko yallah soppil ay ɗim bi jahi nabi sallllahu alayhi wa sallam bi jahi nabi mustafa sallllahu alayhi wa sallam heewano biirani tan ko noon tan comme niñ ko walle léegi rek noonu la koor ko maayi waa koor dem na kono dawal allah ene wuuri mayata waaye nag jaam yàlla du dee mukk mu ngi des ɗum noon mbaɗa ko koor ko e nder dawal allah jeeya kono nag comme koor si jaamu en mbaɗi ko allah wino e ko yamirno en ko fodde kattande meɗen def nañu yàlla digaloon suñu kemtalaay kattan ko heddi ko lu des ko Allah timmitinta yàlla moo koy matal dañ ñaag yàlla yàlla timmitina leen ko mojj mi ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla matal yàlla ken juurde balde yàlla yàlla may gudd fan bakkan battana mojje ñu may ñu mujj bu rafet booyen waddudi ni yen ñu yàgg di ko defee nii incha allah jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbaɗa mbaɗana duwaw eyi baal اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحمد لله وعلى آله اسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أبسط الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى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 gannaaw imaam bi mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggal yàlla li mu doon wax ci xutba bi ci arab ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ni moo def weeru koor muy farata ci xeetu ngën ji mbindeef muy sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu nag yàlla defal leen bisu korite muy bisu mbégte ak bisu contentement ci lislaam أنا ميغي سيادني أمول بن بور كدول يالله ميغي خمني موي بور بي نيب خم دي سيادي تام ني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يالله موكو يوني اب جامام لا وايا نداوام لا يننتي بوبو nga xamni mo wax ni nit su woré ba dok da fay nit su woré da fay am ñaari mbekté ben mbekté bi mi ngi koy am waxtu wu dogé ben bi kérok buy dajé ak boromam mbégte mi muy am bu dogee bis bu nekk soo wooree xam nga waxtu yu ngay dog da ngay kontaan waaye contentement mbégte yooyu yëpp ci bisu dog bi dafa am contentement bu leen di boole ëmb ci bisu dog bu mag bi mooy bisu korite comme tey kon tey bisu mbégte ci julli ñëpp mbégte mi du pour li ñu bàyyi koor gi di lekk di naan déedéet mbégte mi mooy li ñu yàlla sant woor leen yàlla may nu kàttan ñu woor naafila leen yàlla may nu kàttan nu naafila taxawal leen guddi laylatul qadr yàlla may ñu kàttan ñu taxaw guddi laylatul qadr def leen li'tikaaf yàlla may nu kàttan ñu def li'tikaaf jàng leen alquran yàlla may nu kàttan ñu jàng alquran génnee leen azakay muuru koor yàlla may nu lu nu génnee azakay muuru koor loolu la nu bége ci yiw yëpp ñu dajale loolu mooy waral tey suñu dogee ñu bég ndax yiw woowu waaye beneen mbégte mi nag sang bi nee na mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bis bi nga xam ne kii daan woor mu ngi dajeek boroomam subhaanahu wa taala bis boobu dana am mbégte ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dooli xéewalam muccam ak barkeem ci sang bu tedd bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak dayoom mu ni gannaaw bi ñu sante yàlla mu ngi ñuy dénk waaye dénkaan bi mu ñuy dénkal mi ngi ciy jiital boppam lan la ñuy dénk mooy ragal yàlla mu màgg mi ak topp sunna yonent yàlla muhammad yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nga xam ni yàlla moo ko tànn ba pare teddal ko imaam nee na mu ñuy fàttali waxu yàlla bi mu wax ni wal asri inna al insana la fi xusri ne doomu aadama yépp ngi ci pers mu ni ba mu des illa allazina amanu lu dul gaa yi nga xam ne gëm nañ yàlla ñooñu perte ñu wa amilu yi ñu def jëf yu yiw wa tawaasaw bil xaq ñu dénkante dëgg wa tawaasaw bi sabr ñu dénkante muñ te amonoo bi lii jataay bi nga xam ne tey moo ñu dajale fii di koor gi loolu feeñ na ci ndax ku gëm yàlla danga woor julli gi bokk na ci ku gëm yàlla da nga julli ku gëm yàlla da nga génne azukay muuru koor ba pare nga def def yu yiw baalante àq comme li ñuy def dénkante dëgg daal di dénkante muñ ci biir xutba bi imaam nee na yéen jaamu yàlla yi maa ngi leen di dénk na ngeen julli te ngeen sëlmal ci soppe yàlla bi muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne yàlla moo ko jegeel boppam ki nga xam ne yàlla moo ko gërëm loolu da ngeen koy def bu ngeen ko defee def ngeen santaane bu leen yàlla sant ndax yàlla moo wax ci alquran moom yàlla ak i malaakaam dañuy julli ci yonent bi kon yéen ñi gaa yi gëm yàlla julli leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax dafa wax loolu rek ci biir xutba bi moom mu julli ci yonente bi mu ne allahuma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi innaka hamidun mu ñëw ci xutba ñaareel bi mu ne mu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi tedd bi sallallahu alayhi wa ak ñooñam ak i saxaabaam mu ni yéen jaamu yàlla yi na ngeen xam ni ñaari at yi paase yàlla teg nañu natt bu ñuy tuddee feebaru Covid 19 muy coronavirus bi fi jaaroon mu ni kenn werantewul ni feebar boobu soldaar la ci soldaaru yàlla yi yàlla moo ko yobaloon ci jaam yi te yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ni wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu nee soldaaru yàlla yi ni ñu toll nee na kenn xamul nu mu ni ñu toll ay soldaaru yàlla ay malaaka yi dañ ci bokk feebar yi mën nañ ci bokk virus yi mën nañ ci bokk yooyu ay soldaaru yàlla la ndax yàlla dafa bëri lépp lu yàlla bind rek dafay topp yàlla di ko di ko déggal ba mu des ñaar muy nit ak jën mu ni feebar boobu yàlla moo ko yónni woon ci mbooleem nit ñi lu tax mu yónni ko mu ne xanaa bari lu nit ñi di def ay bàkkaar ak lu ñu yàq ci suuf yàlla wax na ci alquran ni zaaral fasaadu fil bari wal baxri bi ma kasabati aydi ngeen xam ni aw yiw lépp mu ngi ci ànd ci la yiw nekk waaye ay lépp mu ngi nekk ci fitna maanaam jàmm ci li yiw nekk waaye fitna ak xuloo loolu mooy indi ay mu ni ñenn ñi sax dañuy wax ni al fitna boo ko bindoon ñeenti araf la am na faa araf faa am na taa am na nuun am na taa marbuuta mooy taa bu mujj bi mu ni faaw bi bi ngay bind fitnatu faa bu njëkk bi mu ni mooy fasaad nee na fitna faa bu njëkk bi mooy fasaad yàq nee nun gi moy nadama réccu nee na moy gi mooy talful amwal talla talaful amwaali maanaam alal bu yaq haaji moy hadru dima dara soteku yàlla nañ yàlla musal mu motax dañu bëgg mbokk yi ñi def ta samuh balante jéggelante suñu digënté baña xulo baña yé fitna ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni fitna ngi nelaw yàlla rëbb na képp koo xam ne yaa ngi koy yee nee na ibnu abbas radiallahu anhu jëlee nañ ci moom mu ni yàlla day farataal na bisu tey balaa ngay julli si nga génnee sa azakay muuru koor ndax muuru koor dafay laabal ki daan woor ci ay mboosóor ak i waxi caaxaan te tamit dafa nekk ñam woo xam ne dafay leel miskin yi saa lañ koy génnee wala lu toll na moom li ëpp ci li waa dëkk ba di dunde yonent bi alayhi salaam mu ngi ñaax nag gannaaw weeru koor muni ni képp ku woor weeru koor ba weeru koor jeex nga tek ci juroom benn fan ci weeru shawal da nga mel ne ku woor sa diru dund yëpp limu mu nak moy ñaan mi ngi ñaan yalla yalla yalla nangu suñu koor yalla yalla nangu suñu nafila yalla yalla nangu suñu tuub te tuub yoyu yalla nangul ñuko jéggal ñu suñu bakkar mi ngi ñaan yalla subhanahu wa taala yalla na ci ñun wéru koor ay at yu bari ak ay yoon yu bari mu and ñu and ak wér amin ànd ak amin ànd ak yaram amin متجنك نيانو نتو يالا بو مغبا من شيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه اللهم يا يالا يا بلادنا يالا نغا ديف سونو ريو من خير البلاد موي ريو بي غنتي ريوي تي لب وجعلها يالا نكو ديف امينه موي ريو مو خامني بو ام سيكوريتي لا مطمئنه موي ريو مو دال يالا نغا ديفال الى يوم التنادي با بيس ميغا خامني نييب دي ني ديلو سي تي ياو تودو سيلو يالا بروم بي غناو بي مو جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق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 سنو سيرين تشرن حامدو يا ربان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته